Euh, instant bii nii maa ngi nii ak jigéenu Pastef ak jigéenu Casamance ak euh, jigéenu Bois Sacré bu Ziguinchor euh, tey li waral dox dox bi mooy injustice bi nga xamante ne bi ñu teg ci Ousmane Sonko muy sunu doom muy sunu rakk muy sunu mag ah moo waral dox bi mu doon loo xamante ne lu métti sunu xol métti na sunu xol torop kon duñ ko mën a seetaan moo waral jóg bi ñu ne ñun tam ñu def lu ñu mën.

dañu bëgg bu dee moom yëf yi daf ko leer nam ko jaarale si yoon bu ko jaaralu si yoon ñun joolaa lekkat la ñu xam lu ñu jaaxal lu nekk lekkat la ñu ko jaaralu si yoon dina ko gis ak famille bi yëpp ko jaarale si yoon rek la ñu bëgg su ko leer na mu sóoru rek mais bu leelu mu jóge te fu ñu yegg rek fu ñu yegg lu ne dina ko gis ndax fu ñu yegg dañuy dëpp suñu suñu lekk yi rien que pour moom rien que pour Adji Sarr rien que pour ñu nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo bakk si liggéey bi si complot bi si li nga xamante ne même ñu nga xamante ne ñu si suuf dinañu gis sansu leket bi dafa nekk leket bu nga xamante ne depuis cosaan la depuis suñuy maamaati maam ba tey leket bi lu mu wax rek loolu mooy am leket bi du wax li nga xamante ne yàlla ak yonent bi bu fekkee Macky Sall wóor na ko na def na def parce que moom fu mu nekk ni wóor ko ni loolu moo am léegi nañu dem ak moom. dañoo ne Macky lu tax ñu di ko tudd moom moo nekk si boppu réew mi waaw na wax nag mbokkam yi ak ñi mu àndal mu teggi tànkam fi mu ko teg su fekkee dafa bëgg a jàmm dañ ko dénk réew mi ne ko téyal ñu réew mi. su fekkee dem na ba mënatul a téye réew mi mu delloo ko population bi mais nar a taal senegal ci benn heure kooku moom yàlla bëggu ko ndax di tuumaal koo xamante ne kooku dafa set wecc. yaa ngi dégg la président Ousmane Sonko kooku moom étoile polaire la boo xamante ne yàllaa ko wàccee si addina bi mu nar a nag sauver adduna bi yëpp kon nag nekk buñ la dénkee soo demee mënatuloo da ngay wàcc. yaa ngi dégg waaye nag nekk fii aji ajiraa bi ajiraa bi moom dañ ko monté complot dañ ko ko monté parce que nit la boo xamante ne jigéenu mbedd la tax na ba nga xam ne man sama bopp dama rus a nekk jigéen léegi